سود الأمانة ونسح الأمة mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin sant buur bi nga xamante ni moom rek moom moo yeyoo xeetu cant yépp ci ndigalu sëriñ Mouhamed Kunta di xalifa cheikh bu Mouhamed Kunta rahmatullahi alayhi al maghruf bi baay bu ci wàccaay wi nga xam ni moom la doon wàcc ci ziyaara bu mag boobu nga xam ni mooy ziyaara Cere ak Saara Gati sëriñ bi sant ci yàlla bu baax yàlla mi nga xam ni moo ko may muy première édition boo xamante ni moom sëriñ bi moom moo ko taxaw ca njëlbeen ba fii ñu toll waaye it di ñaan yàlla sunu boroom mi nga xamante ni moom rek mooy nungu ñaan yi ni lanu fa ñaan ñaanal ko wayjuram waye ñaanal ko magam gi nga xamni mom lu wootu tay di alxaaji Sidi Muxtaar yal na len ko sunu borom jot li ci barzak serign bi wax ni kat bis bi day jàll na ci jam ak salam waye mu ngi ci sant nak ay bokkam sant gogu nak serign bi neena mu ngi ci jital ki nga xamni tay mom la sunu borom jital ci usratul kuntiw muy al cheikh bu Sidi Muxtaar Kunta di xalif général des cadres du Sénégal waye ci Afrique sëriñ bi wax ni sëriñ bi dey moom da koy ñaanal yàlla sunu borom fekk aw fanam ba ca kanam kanam ndaxte xam na ni kilifaam la iir na yilif na ko te moom sëriñ bi nungu na ko bu wér nag ndaxte lii di ziyaara bi bu ko ci sëriñ bi joxul woon ndigal da koy yemale foofa la ca war xalifa bi fa tabaarakallahu def na ko yónnee fa une forte délégation boo xam ni kii di porte-parole yor kaddu askan wi di Cheikh Al Khalifa moo ko jiite ak mbooloo mu bari fa tabarakallahu sëriñ bi wax ni la waroon ca gàmmu ga yépp fa defal nañ ko kon mu ngi ñaanal xalifa bi yal na fi sunu borom yàggal waaye yal na sunu borom may ak wér nee na bu noppee ci moom nag mu ngi ciy teg ki nga xam ni moom borom dëkk bi waaye di magam di xaritam muy sëriñ Mouhamed Hammu Kunta mu di ko ñaanal bu baax gis na wéttali gi nga xam ni nañ ko ci wetam waaye sëriñ bi day wax na ni moom sëriñ Mouhamed mënul sant ba jeexal mbaa mu ubbi ak cantam gannaaw kilifa yooyu du sant ñi nga xam ni ñoom la bokkal jur Cheikh bu Mouhamed Kunta Baye bu cant googu nag mu ngi cay jiital ay rakkam rakkam yooyu nag ka mu cay jëkke mooy Cheikh Sidi Yaxya mi nga xam ni moo topp ci wetam te yor kàddoom mu ngi koy sant bu wér moom ak mboolem ay rakkam yoo xam ne rek Cheikh bu Mouhamed Kunta Baye bu moo leen jaboote waaye nag di ci tànn jenn jëmm muy Zeynil Abidin Kunta nga xam ni la ko waroon ca bis ba na nga xam ni noonu la ko daan defalee way juram cheikh bu Mouhamed Kunta daan ko defal magam ju tedd ja El Hadji Sidi Mokhtar Kunta noonee taxawaay boobu la amaat ci wetam ni ko sëriñ bi man dey sëb ndigal rek lay déglu ndaxte lii may def sama jur laa koy defal kon sëriñ bi nee na mu ngi koy sant bu baax di sant njabootu cheikh bu Mouhamed Kunta Baye bu yëpp li ko commencé ci mag ba ci ndaw góor ak jigéen sant it ki nga xam ni rakkam la di Cheikh Sidi Mouhamed ibnu Cheikh Sidi Yahya nee na mu ngi koy sant bu wér moom it yónnee na fa délégation bu am solo rakkam bi nga xam ni moo ko toogal fële ca dëkku woy juróom ba ca Latmingué di Cheikh Sidi Moukhtar yónni na ko fa mu ñëw ànd ak ay bokkam yëg ñëw foofu ci jotaay bi sëriñ bi nee na mu ngi sant nag imaamu ratib bu Njaasaan di Cheikh Sidi Omar Kunta ak njabootam fa tabaarakallahu taxawu nañ ko wettili nañ ko sëriñ bi nee na mu ngi sant ki nga xam ni mooy njabootuk El Hadji Mambu Mouhamed te sëriñ Mouhamed Kunta jiite njaboot googu nee na sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant sant boo xamante ni day am na tàmbali waaye amul fu mu yem sëriñ bi nag nee na it mu ngi sant njabootuk imam Mouhamed Bekkaay moom it xam nañu ni seen jur day ak Cheikh bu Mouhamed Kunta Baay bu benn lañu ñu woon loolu it fàttewuñu ko moo tax mu ngi leen di sant bu baax waaye di ca jiital Cheikh Sidi Yaxya mi nga xam ni mooy taawam di sant it famille bi nga xam ni mooy famille yu maam Sidi Muxtaar Kunta te Cheikh Jeydi jiite ko mu nekk ca bopp ba moom it mu ngi koy sant bu baax di sant njabootug magam di alhaaji Sidi Muxtaar Kunta parce que nag seen waajur day dëddu na loolu nungu nañu ko xam ni dogalub yàlla la waaye tey xoolee nañ ko bët ba nga xam ni moom lañ doon xoolee seen baay bët ba nga xam ni kaddu go nga xamanteni bu ko seen wayjur musaana joxe ñu jëfé ko kaddu gogu day seen rakki wayjur wi tok yor khilaf ak baay bu bu ko joxee ndigal lolo rek lañ koy jëfé kon serigne bi neena mu ngi sante ay doomi bopam yoyu waye sante ay jarbaatam ñom ñep fa tabarakallah sante nañ leen serigne bi neena mu ngi sante njabootuk mamam di mamam buuna maam ndaxte mo jur way juram wu jigen nee mu ngi leen di sante bu baax fa tabarakallah gis na seen wetti li waye xamna ni kat yéen dey ak moom yéen a bokk lépp te mënuñu koo séddoo mu nga cay jiital nag ki nga xam ni mooy Cheikh Sidi Muxtaar Kunta te tey mu yor xilaaf ak maam buuna ma mu ngi koy sant bu baax sant it ki nga xam ni mooy sëriñ Abdourahman Kunta mu ngi koy sant bu baax sëriñ Abdourahman di doomi sëriñ Mouhamed Buuna nee na mu ngi koy sant bu wér sant it ki nga xamante ni mooy njabootug bay bu Sidi Muxtaar bu ñu ko santee war na fa tabaarakallahu sëriñ bu Sidi Muxtaar magu bi la waaye xaritam la fa tabaarakallaahu tey mu ngi cey jiital ki nga xam ni mooy Baye Sidi Muxtaar Kunta mii xalifaam Baye Sidi day wétalug sëriñ bi la xaritam la sëriñ bi nee na mu ngi koy sant bu baax a baax di sant it njabootug magam sëriñ mam bu mun ni Kunta te ki nga xam ni mooy Cheikh xalifa Khalifa sëriñ Pape Abdou Rahman mi yor kàddoom moom it ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu gis na seen taxawaay ci wetam di sant it ki nga xam ni mooy njabootug Cheikh Bunaama te kiñ ca mën a tudd mooy Moustapha Kunta ak ay rakkam yëpp fa tabaarakallaahu seen taxawaay gis na ko di sant it njabootuk Serigne Baba Ahmed Tuutaan Kunta ñu ngi leen di sant bu baax a baax te Cheikh baaba mi nga xam ni moo jiite njaboot googu na mu mel ak Serigne bi kenn ku ci ne ci njaboot gi nga xam ni moom la Serigne bi yilif yëg nga ni kat Cheikh mii de ku wettili Serigne bi la ku nekk ci wetu Serigne bi la ku taxawul Serigne bi la. kon nag sëriñ bi nee na mu ngi koy sant bu baax a baax di sant it ki nga xamante ni mooy Maxtaar Kunta Maxtaar Kunta di doomi sëriñ Mouhamed waaye di goro ci sëriñ bi ndaxte dafay denc doomi sëriñ bi Maxtaar doomu sëriñ bi la sëtu sëriñ bi la léppi sëriñ bi la waaye yëg na ni day Maxtaar mii sama njaboot la nekkul ni dafa yor doomam moo tax mu ñëw taxaw taxawaay boobu ci wetam sëriñ bi nee na Maxtaar mu ngi koy ñaanal yàlla lu mu man ren yàlla na ko mën déwén ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant it ki nga xam ni mooy Mouhamed Khalifa Bekkaay mu ngi koy sant bu baax di sant it ki nga xam ni mooy oqbatul mustajab moom ak ay rakkam di njabootu sëriñ ahmadu moom it sant na leen bu baax a baax di sant it ki nga xam ni mooy njabootu Baye Njoogu Faal ñooña nag sëriñ bi nee woon na nañ ci taxaw tuuti ndaxte jumaa jee ca cere ak saaragati bi ci magam ju baax ji joxe ndigal ni dafa bëgg ñu defar ko dafa woo rakkam Zeynil Abidin jox ko ndigal ni ko man de yi du ko yëgal kenn danaa ko wax nag samay rakk ak ki nga xam ni mooy ajaa Faatu di sama mag li ma bëgg nag mooy yéen ngeen wax ko seeni nit ngeen ñëw liggéey jumaa ji ndaxte seen bàyyee ko fi defoon Zeynil Abidin wax ko sëriñ Abdou Fall mii doomu bàyyi njóogu kooku ñëw xool ko daal ni ko sëriñ bi lii dañ koy daaneel dooraat ko loolee fa tabarakallahu mucc na ay te ku dem ci saaragati di nga gis jumaa ja fa def kenn kon Serigne Mouhamed mii rakko El Hadji Sidi Muxtaar nee na Serigne Abdou cantam du mas a dañ ci yow waaye ñaanamit du mas a jóg ci moom mu ngi koy ñaanal moom ak magam Pape Abdou Fall Pape Pape Fall mu ngi koy sant bu baax ndaxte Pape Fall li ko war ci bis bi def na ko cere yaak saara gati ba ziyaar ba dooree ba léegi Pape Fall chaque année moom mooy joxe camion bi nga xam ni mooy yóbbu bagage yi waaye di taxawu it ñi nga xamante ni mooy donga ya fay dem di bâche bâche ba ñoomit mu ngi leen di sant bu baax a baax fa tabarakallahu di leen ñaanal yàlla yàlla suñu borom taxawu leen waaye yàlla suñu borom wettili leen di sant it njabootuk Cheikh Bekaay Baabu di ca jiital sëriñ Mouhamed Baabu fa tabarakallahu sëriñ bi nee na mu ngi koy sant bu wér waaye sant nag koo xam ni kenn la ci moom muy Ngañ Jàllo Ngañ Jàllo nag goro sëriñ bi la ndaxte moom ak soxnaam fa tabarakallahu sëriñ bi gis na seenu wettili waaye gis na seenu jàppale jëm ci moom seriñ bi nee na mu ngi leen di ñaanal bu baax a baax fa tabarakallahu sant ñi nga xam ne nag ñooy ay bokk ci boppam ñii ñooy néegu woy juram bu jigéen muy famille jaawara famille jaawara fa tabarakallahu xam ñi kenn ku ci ne xam nga ni kat mam koddu moo jur cheikh bu Mouhamed Kunta al Maghrouf bi baay bu te booy jur baay bu ci boppam ña ko mag ñoom ñëpp jaawara lañ sant ñoo ko bokk waaye ñooñu day seetaanu ñu sëriñ bi benn yoon nañ ko doon defalee El Hadj Sidi Muxtaar noonu lañ koy defalee sant googu it mu ngi ciy jiital ki nga xam ni mooy Pape Diawara sant it ki nga xam ne ba tey mooy famille yu wage ñoom ñëpp ci famille boobu la ñu bokk ñu ngi leen di sant bu baax maam Yacine euh, Diawara fa tabarakallahu ak nday wage moom it mu ngi leen sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant bu baax a baax sant it koo xam ni kenn la ci moom di jarbaati boppam muy soxna Awa Kebe soxna Awa Kebe mu ngi koy sant waaye di ñaanal borom këram Cheikh Kebe di ko ñaanal yëggal ak yërmande ci suñu borom ndaxte Cheikh day ku wéttali woon sëriñ bi la waaye ku wéttali woon famille yu baay buu la fa tabaarakallahu daara ja fa def ba léegi daara jàng fa macha allah am na ay dongo yoo xam ni mucc nañ fa alxuraan tey ñoom ñëpp loolu bu ko mënee tey Cheikh Kebe moo taxaw loolu kon barkeb alxuraan yal na ko ci suñu borom wallu def ko ak njëggal ak yërmande ci moom sant it ki nga xamante ni mooy Cheikh Adama Seck Cheikh Adama Seck ci biir famille jenn manka kenn la ci ndax te ku taxaw ci wetu El Hadji Sidi la woon ku ko wettili woon la ba sëriñ bi yëkkati kaala teg ko ci kawam sëriñ bi nee na mu ngi feddali nag kóllëre digganteem ak moom digganteem ak famille jenn manka sëriñ Mouhamed nee na mu ngi leen di sant yëg ngeen ni kat du El Hadji Sidi ngeen defal du moom sëriñ Mouhamed mii toog moom ngeen defal waaye ka ngeen defal mooy cheikh bu Mouhamed Kunta al Maghrouf bi bàyyi bu mi nga xam ni moom lépp waaye ñoom yëg nañ ni daal yéen seeni bokk ngeen. ay bokk yoo xamante ne bëgg nañoo bokkoo ak yow moom sëriñ bi day nee na moom it bëgg naa bokkoo ak yéen kon sëriñ bi nee na mu ngi leen di ñaanal bu baax di eh, leen sant bu baax di leen gërëm ci cant googu mu ngi ciy sant ki nga xamante ni mooy sëriñ aadama Kunta sëriñ aadama dafa jige sëriñ bi ndaxte way juram Cheikh bu Mouhamed Kunta moo ko yar jël njabootam jox ko sëriñ aadama dëkk ak moom nekk wéttalu sëriñ bi it sëriñ bi nee na mu ngi jaarale ak cantam ci sëriñ aadama mu jotali ko Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ni mooy xalifa maam Seydi Lamine mu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sant it ki nga xamante ni mooy Cheikh baay Baye Bekaay Kunta moom sëriñ bi nee na dina ko sant ndaxte kër gii nga xam ni mooy kërug cheikh bu Mouhamed Kunta Baye Bécaye dafay ñëw ci kër gii di ko wéttili waaye kóllëre gi nga xamante ni woy juróom wu tedd wa cheikh bu Bécaye doon na ko dund ak cheikh bu Mouhamed Kunta nee na Baye Bécaye mottali na kóllëre googu sëriñ bi nee na mu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla xilaafa gi nga xamante ni moom la wuutu ci woy juram yàlla na ko ci sunu borom taxaw di sant it ki nga xam ni mooy sëriñ Ousmane Kunta foofu lay tëjee sama kàddu Serigne Ousmane mu maam Sidi Ali Kunta tey yàlla def mu yor xilaafa ga mu ngi koy sant bu baax ak njabootu maam Sidi Ali yëpp la leen waroon ca bis ba ca ziyaara ba fa tabaarakallahu taxawee nañ ko Serigne Mouhamed nee na ñoom ñëpp mu ngi leen di sant waaye di sant bokki taalibe yëpp di sant bokki deret yëpp ñi bàyyeekoo Ndeer sanc buuna ndànk naar guyat shérif ba sookoon ah ba kër jara fa tabaarakallah fu bokk jóge rek ba lugge fu bokk jóge rek te sant kunta serigne mohammed neena beuti xolam gis na la mu ngi lay sant bu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi allazi isa wahaba ajzala wa iza an ama aksara fa tabarakallahu ahsanul qaliqin hamdan xamdan bis salam ila waqti ad duxuli fi ad-dar as-salam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci turu serigne mohammed Kunta من خليفة الشيخ أبو محمد كنت المعروف ببايبو أيده الله ونصره yàlla na ko yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gi ba yéene bi nga xam ne am na ko ci mottali liggéeyu waajuram ba Cheikh bu Mouhamed Kunta yàlla kàttanal ko niital ko ba mu ko àggale mel ni Mutawalli Shaarawi dafa wax wax ju am solo mu ne wërsëg boo ko xaajee ñeenti xaaj lay doon waaye ci gàttal rek bi ci ëpp martaba te gën caa kawe mu ne alal moo ci gën a suufe ci daraja yi waaye bi ci ëpp martaba te gën caa kawe mooy salaaxul abna mooy doom yu baax yoo xam ne wuutu nañu woy jur di ko liggéeyal di ko wéyale ci yoon wi nga xam ni daf caa nekkoon fa tabaarakallaahu sëriñ bi yoon woowu rek la ne moom ak ay rakkam fa tabaarakallaahu ci biir loolu nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam la mu wax it loolu rek la sëriñ bi def mooy ku gërëmul nit ñi santoo leen doo gërëm sunu borom subhanahu wa taala ñu wéy rek ci kàddu googu muy cant goo xam ni mi ngi ko jëmale ci ñi nga xam ni ñoo ko jàppale ci ziar bi nga xam ni mooy doon ziaru cheikh bu Mouhamad Kunta bay bu te ñu jóge fa bërki démboo Ndiaye nee na mi ngi sant nag bu baax ak gërëm ki nga xam ni moom ñi nga xam ni ñoom ñooy fédération Sine Saloum waaye ki nekk ca bopp ba di Ablaye Marigo sëriñ bi nee na mi ngi koy sant ci taxawaay bi ci coordination bi fa tabarakallahu ak sëriñ Sidi Yaxya mi nga xam ni njabootu Cheikh bu Mohamed Kunta la bay bu ci dundam ñu gis cant ak ngërëm gi nga xam ni jëmale woon na ko ci moom gannaawam itam sëñ Sidi Mokhtar cant ak ngërëm gi nga xam ni jëmale woon na ko ci moom sëriñ bi nee na cant googu rek lay wéyale ci ni nga xam ni noonu la coordonné ak mbokki taalibe yi fa tabarakallahu ba ziar bi mucc ayib ca foofu nga xam ne moom mooy ca Sine Saalum waaye di ci teg nag ki nga xam ni moom mooy Cheikh Bassirou Soumaré nga xam ni moom itam ku ko jàppale la ci liggéey bi sëñ bi nee na sant na ko gërëm na ko bu baax di gërëm tam ki nga xam ni moom lañuy ñuy wax Bourama Touré dëkk sa Caaxo Maabo sëñ bi ne mi ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay wu rafet bi nga xam ne taxaw na ko ci ziar bi di gërëm ki nga xam ni mooy Ceekuroba dëkk ca Coupéy sëñ bi ne sant na ko gërëm na ko di gërëm dumb ya gën a siiwee ca Ndolo dëgg dëkk ca Ségéré sëñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaayu wu rafet wi nga xam ni taxaw na ko ci gàmm gi fa tabarakallahu di gërëm tam ki ñuy wax Moodu Ndour ak Ibrahima Ndiaye ñoom ña nga dëkk ca Sikka ne mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm si taxawaay wu rafet bi nga xam ni taxaw nañ ko ci bis bi fa tabarakallah di gërëm tam waa jamaa bi nga xam ni ñoom ku ne xam na leen ak Cheikh bu Mouhamed Kunta ndax nag moom mooy kuréel gi nga xam ni biñ ko sosee ñëw taxaw wax kook moom mu ñaanal leen mu ne leen lii de li may rëccu mooy ba mu ma fekkee rek man dekk mag waaye su ma doon ndaw ngir xër bi ma xër ci jur wa di Cheikh bu Mouhamed Kunta ak tariqa bi di tariqa al qadriya man may nekk premier soldat buy jiitu ngeen topp sama ginnaaw booba ak léegi nag ña nga ca sëñ bi ne mi ngi leen di sant ci seen taxawaay ak seen pasteef bi ñuy wane saa su ne mooy waa jamaa bi di MJKS di gërëm ñi nga xam ni itam ñoom ñooy soldaaru boroom Ndiassane ndax ku leen xam-xam ni ña nga sosee woon kuréel gi ca ziyaaru Ceriak bi waaye taxawaay bi rafet na camion bi dina fa def ñetti fan ñoom ñooy duy ñoom ñooy jël bagage yi yàpp ko ci kamiyon bi yóbbu ko la fay liggéey ñu def ko ñoo koy roñaat itam indi ko sëñ bi nee na sant na leen bu baax gërëm leen di jël cant googu nag di ko teg ci loxol Zal Ndiaye mu wàccee ko ci mboole ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey boobu ci teg ki nga xam ni di gërëm tam bu baax ki nga cheikh bu ak magam Pap Samb an ñu tantal tant googu mu teg ko seen loxo ñu jottali ko mboole ñi nga xam ni rek ñoom ñooy bi alayhi ci kër gi bi tam mi ngi sant Samba Ka ci taxawaay bu rafet bi di gërëm tam bu baax ñi nga hamni nyomnyo ñoom ñooy kilifa yi nga mi di ci jiital son excellence le président de la république taxawu na ko bisbi na ci bisbi bi fa tabarakallahu te la defit mi ko ci loxo ki nga xamni mom moy le professeur Mamadou Ba nga xamni mom moy maire Sikka di conseil ci maire bu keur Bakka di conseil ci président de la république Kérok ñewna avec une forte délégation amoon yitte yu ko tënk moo cérémonie officielle bi waye sëriñ bi néna na sant nako gërëm na sëñ bi tam wax ni ni ngi sant bu baax le ministre de la santé ndax dafa ñëw fekk hôpital boo xam ne liggéeyal nañ ko ko fa tabarakallahu li des rek mooy mu opérationnel bi nga xamee ni itam moom yitteem ju njëkk mooy nan la ñuy fexe ba hôpital boobu mën a dox ci lépp lu ci war sëñ bi bind le ministre de la santé mu recevoir ko avec une délégation boo xam ni sëñ bi moo leen yabaloon ñu dem toog ak moom waaye bi ñu nee nañ incha allahu rabbi lépp lu ci war ci taxawaay des na ko ci taxaw ba hôpital boobu wala euh, centre de santé boobu mën a opérationnel ci fan yii nu dëgmal ci lu yàggul dara di sant tam bu baax ki nga xam ni moom mooy bay Ndiaye nga xam ni jàmbaari Cheikh bu Mohamed Kunta bay bu la ndax lii lépp moom ci loxoom la aw di gërëm tam bu baax ki nga xam ni moom mooy Boubacar seen nekk ca Ndille waaye di santit bu baax ki nga xam ni moom mooy Aline Fall nekk ca Ndofane ak mboole ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi waaye di gërëm tam Silama Camara nekk fii nga xam ni moom mooy di daaru ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko ci gàmm gi ba dara manqué wul fa tabarakallahu waaye di sant bu baax ki nga xam ni moom mooy la maire Ousmane saar balaa sëriñ bi di dem fii la ñëw taxaw jëflante ak moom jëflante bu rafet waaye itam ci njabootu sëriñ bi itam mu jëflante ak ñoom ngir lu mën a yéwénal ziar boobu nga xam ni moom lañ doon def fa tabarakallahu di gërëm bu baax tam ki nga xam ni mooy le honorable député di maire Ousmane Gueye fa tabarakallahu moom itam sëñ bi ne mi ngi koy sant di ko gërëm waaye di gërëm tam professeur Mamadou jara moom itam di jàmbaaru Cheikh bu Mouhamed Kounta waaye nee na tam mi ngi sant bu baax di gërëm jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo nekk nag fi nga xam ne moom mooy cëri ak saaragati seen taxawaay ak seen laxasaay ci bis bi nu mu mën a ñoŋee waaye di gërëm tam bu baax njabootu Cheikh Bounama gépp nag waaye njabootu Cheikh Bou Mohamed Kounté gi nga xam ni rawatina jeunesse su Ndiassane bi ndaxte kenn desul kër goo demoon rek am na ndaw yu fa jógee ñëw dafay mel ni Ndiassane nga nekkoon kon sëñ bi nee na ndaw yooyu itam mi ngi leen ciy sant mi ngi leen di gërëm ci seen liggéeyu bopp boobu nga xam ni lañu fësal di gërëm nag presse bi yëpp nag ca tefes tefes gi TV nekk ca bar Bargny keroog moom moo ñëw couvrir ko def lépp en ak waa RTS bi xam ne ñoo nekk Kaolack waaye di gërëm presse bi nekk Ndiassane yëpp buñ ko tegee ci loxo Lamine Samake muy best net Ndiassane TV ñoom ñu jottalil ñu ko mboole rek koo xam ni mi ngi nekk organe de presse bu nekk ci kër gi loolu la sëñ bi waxoon ñu jottali mu doon kàddu cant ak ngërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah واذكروا يوم تنقلون مصعبون وتخافون إذ تخطبكم الناس ويكم ويدكم من السره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتشهدوا وجاهدوا حكم صلى الله عليه وسلم رسول الله مع الصالحين رسول الله مع الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم